dur lan lan ngay répondre par rapport à l'interpellation de de de Kadior. Ouais, l'interpellation de Kadior moi je pense que Kadior dafa joxe position il a une position de défense de Ousmane Sonko <laughs> si parce que yow su fekkee ne da nga jàpp ne la justice bi nekk dans son domaine di am des personnes qualifiées pour dire le droit def li ñuy def nga ne justice bii li mu def dafa violer ay droits Ousmane Sonko mais ban base la c'est la base d'appréciation partisane parce que convocation ba ñu joxe dañ ko joxe ñu dem jox ko nit ki pour mu dellu si pour mu ñëw si justice nga wëlbatiku nga ne. sans lever l'immunité parlementaire donc dafa am euh, président dafa wax. ba pare ignorer de façon volontaire que Ousmane Sonko dafa jóg ne sa gatsa sa kii dina ma rey wala ma rey ko. jóg dugg ci mbedd mi donc dëgg sa yaay juraat. donc il faut. loolu dinañ ko rétablir rek. waaye d'accord ah, du rétablir nañ ko. bu leen di ngeen tax ñu indi leen. vaar ma ne ma ne propos yooyu rétablir nañ ko. ma ne ma ne. Hmm. ma ne rétablir u ñàkk a rétablir ci baatam dégg miñam dégg nañ ci loolu. donc ah ngeen euh, maintenant le problème c'est que euh, lii am mooy vouloir le défendre je suis d'accord avec vos arguments de défendre Ousmane ko parce que tout simplement yow. say agriment personnel la parce que aussi am nga position c'est pas une position neutre mais man la position que j'ai mooy le président Macky Sall bi nga wax les pouvoirs d'organisation socioculturelle muy ligne muy euh, euh, leneen effectivement j'ai dit que le Sénégal benn la suñ ko doon teg ci alxuraan muy kaamil unifié ñun ñëpp buñ ko doon teg ci bible ñu unifier ñun ñëpp bu ñu ko doon teg ci xeet wala tarixa du ñu unifier ñun ñëpp ci république lañ koy teg mu unifier ñu. mais il faut pas oublier il faut pas oublier que république boobu dafa am. c'est notre constitution c'est nos droits et règlements le président n'a pas le droit tey. Mm. parce que mënu ko mu jóg joxe ndigal boo xam ne donc institution wax ko mais su fekkee dañuy réclamer un état de droit su fekkee dañuy réclamer une su fekkee dañuy réclamer donc une nation. mais sa waay bu ñu naxante nañ seet nation c'est basé sur des institutions qui constituent cette nation-là et des institutions yoo xam ne dañuy am seen autonomie dañuy am aussi seen efficacité par rapport à la constitution vous pensez que les États-Unis aujourd'hui bi woo Trump avec toute la puissance bi Trump am mu jóg dem uyu ji la justice bu fekkoon ne Trump tey xalaatoon na ne moom quelque fois force bi mu am mun na instrumentaliser des des population wala de militants bu bañ a justice peut-être que mun na ko def mais c'est parce que États-Unis dañu. ça c'est respecter les institutions mais président États-Unis il ne siège pas si si si parce que États-Unis dañu dépasser étape bi. parce que étape bi ñu toll. ça n'a absolument rien à voir mooy que tey amul moyen de trouver ay compromis ou compromission pour que mu am ingérence dans la marche de la justice. parce que képp kuy demander leneen. loo xam ne du na procès bi dem la justice de façon indépendante tranché mooy yaa ngi digle ay compromission te le président la République munul am se moyens et il n'a pas le droit def ces compromissions là maintenant je suis d'accord que ñu ne ku ci nekk am nga sa position société civile am na position am euh, M23 am na position am sur la sur la candidature mais je pense que su fekkee dañoo daje dans une organisation pour définir un contrat de soutien quels soit aussi les motifs entre ñoom de candidats mais ça ça warul nekk seen rôle parce que képp ku ci nekk aussi bu fekkee ne da nga am des démêlés ou des problèmes avec la justice waruñu mun a soutenir kenn parce que il ne doit pas aller répondre moi je pense que c'est dans un état de droit